Fouta moo féete seen càmmoñ Clinton seen di joor Clinton xel dem Amérique moo fa nekkoon moom la Bush remplace laata Obama sunu mbokk Clinton ah Clinton daan na fils de Fouta Clinton daan na fils de Fouta ah way combat bu gaaw fils de Fouta nag yow it beneen yoon xoolal li ngay defan américain bi waru laa daan waaye loolu mooy làmb loolu mooy làmb xale yi gis ngeen stade bi ni mel xoolal xale yu jigéen yéeg yu góor yi jaxasoo beneen combat ngi noonu war a dox diggante Didier ak Boy Xaaf Boy Xaaf moo ngemboo ngembu xonq bi Xaaf anglais mu ñu ne mooy genn wàll loolu la anglais bi wax Didier moo féete seen càmmoñ Didier ak Boy Xaaf ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Didier ak Boy Xaaf et eh, Didier Didier mel na ni ku mbëkk Boy Xaaf waaw waaw Didier mel na ni ku mbëkk Boy Xaaf waaye arbitre bi bàyyi na Boy Xaaf tànk bi tànk bi tànk bi tànk bi jëm na suuf bëgg na mbot déclenché na mbot baaxul booy Xaaf Didier ngi ci sa ginnaaw Boy Xaaf bañ na ñu ngi ci biti dem nañu ci biti ña nga ci biti arbitre bi na combat arbitre bi arrêté na combat bi ma ngay dem ci diggu géew bi arbitre bi woo na leen ñëw nañu ci diggu bi arbitre bi wax naa ak ñoom booy xaaf nee na ko dama am bëgg arbitre bi sifflé waat na ña songoo waat na ñoom ñaar stade Iba Mar Diop wax nañ leen làmb gone yee ko moom xoolal ma lii day saan cëy cëy cëy le 27 Ama Baldé Gouye loolu alaaji Bécaye lañ ko tudde waaye delloo na ko Sénégal drapeau du Sénégal lay doon booy xaaf ah booy xaaf daan booy xaaf dijee dijee dijee moo daan booy xaaf waaw dijee moo daan booy xaaf doole yemul yow fekk nga caat saalu max ñoo bokk saal damay escouade 200 kilos billaay wallaay di fowe 100 kilos dama koy fowe dañ jàpp mu daw di ma mot ma ma wéeru ko maa ko doole 110 kilos de muscle laa la wax cent dix kilos de amul graisse te naanuma protéine naanuma dara xale bu ndaw la mbokk yi boobu mooy troisième combat bi Bouba Fit ak ñàkk jariñu Bouba ak ñàkk jariñu ñoom ñaar ku nekk ci sac mars def nga ci jaloore Bouba Fit fi mujj nag ci victoire la fi jógee naka noonu ak ñàkk jariñu bañ na Bouba bañ na ndeysaan Bouba bañ na waru usa waru woy woykat mag ba dëkkan tëngéej Moussa Diagne wayoon na fi way bi ko buuba bañ ndeysaan di profit naa lool lool la way di jëriñ way day wax ñàkk jën ñoo ngi dóor ngir buuba mën a sigg ay buuba fi teg bopp bi la ndaxte ñàkk bëggoon naa jàpp buuba sotti nan la waaye bañ na moom it na ñàkk bañ na ñoom ñaar xam ngeen seen combat day neex ndaxte ay bañkat la buuba fit bañkat la ñàkk jëriñu buuba fit ay clé ku nekk ngi def action ci ñoom ñaar kenn bàyyiwul sa morom dara dóoru songu defi pexe li mooy bëri bëri noonu la xale yi bëri noonu bëri bi yàgg ñoom ñaan ñu ngi xeex ñu ngi xeex rek ñu ngi xeex rek ñu ngi xeex songoon ji saa yoo mébee rek sa daa tax mais dama koy daan laaj voilà jeex na xala maam Serap Fall dama koy daan man xam lan laa bëgg bul Ibrahima daan ñoom ñaar ku ci nekk am nga client ndax te ñoom combat ngi nii lii booy boole ay xale da boole xale yoo xamante ni bu ñu bëree amateur yi bëgg amateur yi bu bu ba bëgg na koo jël takk na ko ndax ñàkk jariñu dina ko ci ba takk na ko takk na ko. mënoon na dugal caxabal bi waaye nanguwu ko nanguwu ko arrangé wu ko des fois caxabaam ci suuf bu ngi ci suuf ndax a ngi ci kaw kenn musul gis lii ñu ah buuba buuba nag toogul nag toogul toog na toog na toog na ñàkk jëriñu daan na muy beneen victoire encore pour ñàkk jëriñu ndeysaan buuba fit ci njàmbaaram ndeysaan xool ko siis béykat yi si ñor jël si. combat mën a xeex pur wóor na yàlla loolu la taxaw it te nag dañoo combat temps la waaye nag waa Thiaroye martial yu Moussa Seck Ablaye Samb soxnaam yëpp ñëw liggéey ñoom Modou waa Foundiougne waa Djolor waa campement waa Djolor waa Baba Séeréer waa Touba maa ngi koy may waa Touba Thiaroye Mor Seex plateau ngi nii beneen plateau bi lépp a neex làmb ji combat bu ñëw nga ni moo dàq bi ci des la ñuy soxla promoteur muy feu ak mamballa mamballa ngeen moo ngeen bi feu rouge mamballa feu rouge mamballa ñi ngi ci saako yi ñi ngi dóor teewul mamballa ngi jàpp wax naa leen digganteem ak Siteu moo ko fi jëkk mamballa mi ngi dóor mi ngi dóor mi ngi dóor mamballa ngi xeex feu rouge ngi sëgg si giwul Mamba laa ngi xeex waaye Farouz jàpp la bëgg arbitre bi arrêté na combat waa ndaxte li ñu bëree yàgg na noppalu ci la Farouz a ngi noonu dellu si waat noonu Mamba la jël na Farouz waaye oh toog na waa da ko toog na Mamba la làmmangoo ku nekk sa bis xoolal ñii ñii ñoom ñii ñoom CNG moo war a jóg ci moom ku daanu ñu dagg sa buñ ko defoon rek léegi yiy jeex mbër yi moom ku fii daa parce que ñi amuñu rak amuñu dara. ñoom Gara Mbodj damaa dégg lu métti bii daay walaay chaque xool damay kontaan loo ba ma sonn xool di kaas di kaas ñu may mere bii daay walaay chaque jour. xam nga rek moom lamb la ko lamb ma la mën demee waaw waaw te xam nga ñu naan ñëpp mooy ku nekk si ngemb neexul jàpp loolu moo

ndeysaan combat baa ngi noonu trompeur moo nekk à ci jàkkaarloo bi mu ngi noonu yëkk ci loxo yi trompeur trompeur daal nee na moom mooy trompeur trompeur mooy lan juumloo gaay yi des fois nga bëgg a juumloo gaay yi juuma waaye yenn saa nga jekkule ndaxte bi nga fi mujj yàgg Pape Sène da leen bëggoon da ko bëggoon a juumloo faf juum te defet yu mel noonu dinay baax ci mbër arbitre bi sif na kati moo ngemb boo bu weex moo leen féete à gauche trompeur à droite ñaar ñu ngi léewtoo stade Iba Mar Diop ñu ngi léewtoo ñu ngi léewtoo waaye yu neex rek ngay dégg cey lam ñu ngi léewtoo trompeur kati trompeur nga jiital noonu ak euh, Kati nekk Dóor Kati Dóor ñoom ñaar ñu ngi léegi toog trompeur nag yaakaar naa ne bëre bee koy arrangé voilà ndaxte bëre xale xale mënoo ko magee yenn at yi daan loolu yaakaar naa ci làmb war nañ ko mën rek yenn saa yi ñu ne gàllaaj laak nangam nangam waaye boo xoolee sportivement kal plaqué na ko ah waaye daan na ko daan na ko xale ak mag du benn. di courage de ko sa entraînement champion xale ak mag du benn non kii war ma yàgg ak moom war ma yàgg ak moom dama jëli base bi laa dama ji woon su ma teye maa mën gaay billahi wallahi su ma teye maa mën gaay dama ji woon mu nekk sax ñu fàttali leen samedi stade Iba Mar Diop son yu bu moo fa taxawal làmb mu di drapeau Balla Gaye building ak ambulance làmb la ju nuy woo amateur yëpp ndaxte xale yooyu it jar na noo jàppale ay xale lanu yu dugg ci làmb jël seen teraanga di ko ci def ngir làmb jëm kanam kon ñooñu bu nu wootee làmb rek làmb ju neex la war a doon Iba xam naa ni yaa ngi ci article yi ñu gis roq yaa ngi bind ah Koné mi ngi bind dembale mi ngi bind gars yi lu ne ñu ngi koy def ci wàllu làmb lan nga du boo amoon loo doon demander pour presse bi am ko ci làmb lan lay doon Euh, mooy ñu gën leen jox gëdd quoi parce que lu tax ma ne jox leen gën gëdd parce que euh, mbër yi dañu versatile tey da ngay woo ma jox exemple nga woo un Balla Gaye 2 woo ko enregistré ko bind ko mais bu génnee revue de presse ni ñu koy kiyee rek ñu woo la ne waxuma woon loolu. ndax revue de presse ndax revue de bi mooy tax ni ñu koy taawee. mu ma jël exemple un Lamine Samba ou bien Ahmed Aïdara ni ñu koy taawee. ñu ne waxuñu woon loolu te fekk yow enregistrement baa ngi yow donc côté boobu daal day am incompréhension suñu diggante ak mbër yi côté boobu ñu xam ne ñun journalistes yi amuñu sañ-sañu déformer nit ki lu mu wax. Mm-hmm. loolu dañ ko ragal sax. donc lépp lu ñu wax nit ki moo ko wax te dañu am enregistrement yi ba fu munti dem jusqu'à preuve du contraire dañuy yor enregistrement yi donc daal côté boobu bëgg naa ñu ñu gën a dooleel journaliste si xam nañ ñu duñu déformer leur propos. Ah, CNG am nga loo leen wax ñoom par rapport ak ni ñuy liggéeyee ak presse beeg ni ñuy liggéeyee ak ci biir làmb yëpp. waa ni ñuy liggéeyee ak presse bi ñoom man maa ngi koy saluer parce que booy xool. Euh, gën na gën nañu rafetal liggéey bi léegi parce que booy xool bu bu bu léegi yomb na daal yomb na melul woon comme bu njëkk euh, bu combat jeexee di nga mën a def sa liggéey comme il faut di nga a jël réaction mbër bi après combat bi arbitre yi tamit dañuy faciliter tâche yi dinañ dugg ba seen vestiaire ñu jël ñu jël leen waxtaan ak ñoom euh, pour man daal gisuma difficulté majeure entre CNG ak presse. Ama Baldé